Bonjour, euh, je suis Marie-Jeanne Djemé, commissaire national chargé de la formation. Alors, euh, avec mes autres collègues qui sont dans les autres foyers de marche à Thiès et à euh, Dakar, on est en train d'accompagner les marcheurs pour euh, vraiment euh, euh, relever le défi de zéro déchet. Donc, comme vous le, vous, on a constaté depuis des années, quand les marcheurs passent, il y, y, y a beaucoup de déchets par terre. Et euh, on a voulu euh, relever ce défi cette année pour accompagner les marcheurs avec euh, les guides du Sénégal pour vraiment récupérer les déchets et que euh, le passage des, des, marcheurs puisse rester impeccable et vraiment prendre soin de notre environnement comme nos pères évêques nous l'ont demandé. Salam alaikum. Je suis Annick national à la branche verte des guides du Sénégal. Donc, aujourd'hui, nous guides, nous sommes venus parce que dañoo seetu ci ay at suñu ginnaaw ne marcheurs yi buñ fi jàlloon après dañuy bàyyi ay salte yoo xam ne saleté yooyu baaxul tey ci environnement bi baaxul ci suñu dund. donc ñu ne tey ñun Guides du Sénégal dañoo ñëw ngir dooleel environnement bi ñëw indi suñu apport ñu tuddee projet bi les guides s'engagent pour une marche pèlerine avec zéro déchet. donc tey ñun Guides Sénégal yi ñu ne dañuy ñëw indi suñu apport ngir taxawu marcheurs yi pour benn marche pèlerinage boo xam ne ne zéro déchet lañ ko tuddee lu jëm ci sachet ndox yi ñuy yor lu jëm ci butéelu ndox lu jëm ci lekk yi ñuy sàndi loolu yëpp ñu ànd ci ak waa UCG fas yéene leen jàppale ndax ñoom bu ñu jàllee ñu bañ fa bàyyi benn salte te loolu tamit dafay tax ñu gën a mun a dund suñu article bii di wax laa guide découvre la nature et y voit l'œuvre de Dieu donc ku wax waxu nature wax waxu environnement nga xam ne ne ñoom ñaar ñoo ànd te buñ ko gën a préserver rek dina gën a tax ñu am lu positif te ñuy euh, tamit remercier suñuy évêques yi nga xam ne dañ ñoo jàppale bu baax ci projet bii nii ndax ñoom tamit lu jëm ci environnement da leen soxal donc bu ñu gisee ne tey lu mel ni guide du Sénégal yi fas yéene indi seen doole pour jàppale leen ci loolu fas yéene taxaw ngir marche pèlerinage bi mu bañ a am benn salte loolu ñoom tamit dañ ciy kontaan. Avec les guides du Sénégal, une marche zéro déchet